maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla defal ñu mucc ak muccule yàlla dàqal ñu lépp lu ñu ragal te ñoddi ñu lépp lu ñu ñeme def ci suñu senegal gi nag jàmm bu loolu paasee ma ñëw ci suñu série tey joor ak joor Dior ci 31 waaw léegi nag yaama kii yaama moom du nit yaama yaayam yàq na ko yaa ma dootul baax alaa yow mi diini xol bu bon la yor xolub iñaan la yor yaa ma baaxul guddi baaxul bëccëg ndax li muy li muy joué rek duuburu li muy joué yépp ci kawam lay këpp en même temps moom na xam ni sëyu maajoor ak euh, joor yàlla ca aras la ko takke munu ci dara yaayam munu ci dara yaayam dama gëm ne fin bi yaayu maajoor ñi mu fay pour ñu sogeel joor ak yaayam yàlla dina leen ci defal mucc daal moo gën a am sens ñu yéeg ci donkaase gi ndax kuy def lu bon moom lu bon rek nga war a am ndax papay joor ci do di di maajoor ci dox neexul yaama mu ngi jooy jooy yoo xam ne ni li muy jooy da gëmu ci dara naar nag moom du julli du nit ku baax moo tax yaay ju baax rek a baax gis nga kee mi ngi ko yéene lu baax ndeysaan am ci moom confiance jàpp joor di ko xas moom maajoor moom moom moom moom yaama nag gisu ci dara mu nekk rek nit ku bon koo xam ne ni kenn xamul ban genre nit la vie bi moom dafa war a jeex ci senegal te nag lu am la ndax koo xam ne da lay da koy yéene jàmm mu yéene la musiba fu mu toll di la xeex di cor say tànk muy diggante yaama ak joor na bàyyi joor mu sëy sëyam lu ko bàyyi mu sëy sëyam waaw bàyyi ko mu àggale mariage am ci jàmm ak salaam te tamit moom kooku ñuy wax papaam la ak du papaam na lijjanti papaam moo gën na dem lijjanti ji papaam moo gën ci yooyam mu nekk moo yaayam ñu nekk ci lu bon moo tax daal doom ju jigéen moom jàngaani jiwul nday jaay royukaayam doom ja ndey ja ku ko bañ ku ne sa ndaya baaxul te moo dal naar ak ki nga xam ne mooy yaama maa ngi ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp